Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fi ci 23e édition Fiara ma taxaw ak bokk bo xam champion bi do nuyoo waxuma may kan kilo jarna la euh ma lay delo jar bi wéré wéré wéré tur bi. Euh, tur bi ñu ngi koy wax Bachir. Bachir waaw bergerie. bergerie Nderengi famille. <laughs> sama waa yi waa Nderengee ngi nii de. waaw fan la daje woon Sepp. <laughs> waaw daje woon nañ Sepp waaw. maal ba. Euh, maal boobu dafa def ni dafa daanu daaw. waaw mais macha allah mais maa bàyyi na fi ay ay doom fi ay quelques doomam waaw. tey loo indi fiara. tey loo indi fiara. bon tey maa ngi indi benn sëtu magistrat fiara. ok ak ay taawam daal ak quelques sister yu ñu mën a présenté. kan ma surtout magistrat bi moom mooy patron loo. moo nekk maal bi. waaw waaw mooy maal bi. waaw macha allah. Euh, moom ak ak ak fee dafa am beneen maal wala. waaw fee am na beneen maal euh, mooy doomu Mosur 2. ok waaw macha allah. waaw ñoom ñaar laa indi présenté leen. waaw sujet yi comme gars yi xool. macha allah liggéey bi fan la toll ak yooyu daal. mais ah yow dafa doon yokk doole rek trois box laa fa gis ay xar yu rafet euh, surtout magistrat bi ñaar moo actuellement mu ngi ci 19 mois. ok moom mi ngi nekk doomu étoile. étoile di ndew magistrat. bu jugee fan. Euh, ci man maa ko juddule nag. waaw patron loo bi ma ko tuddee mooy Maodo Lo. ku nekk xam na ko ci elevage mhm. moom moo ma jaayoon yaay ji ba noppi mee ma ci tëb kii ñëw juddu kër ga. ok waaw macha allah. Mhm. Euh, tey dina mois euh, indi nga doom ay doom production fu mu toll. waaw production macha allah wax dëgg yàlla mu ngi def production boo xamante ne bu mucc ayib la. ndax boo xoolee tëng yi may indi yëpp ay doomam lañ. ah tëng yi nekk ci digg bi ne. tëng yi ci yëpp ay ñëpp ay doomam maal bi fa nekkoon daanu. mu toll ci 6 mois 7 mois. ma xool ko mu yor ay macération extraordinaire ay doomam daal taxawuñ ñii laa ci mujj tee dama woon indi woon pour présenter ko gars yi comme ça pour ñu xam maal bi xam fu mu jëm ñu bàyyi ko xel xam ni bokk na ci élevage dafa jël si li fi maamam bàyyi pour mu àggali yoon bi loolu moo ko tax a jóg parce tey li ma gis mu taxawee ci LCS ak auto rafet na ah. allah mois mu def maturation yoo xamante ne yu extraordinaire la ñu ngi koy soxla ci élevage ndax euh, am na loo xamante ne si daal maystra amu ko te mu ngi ci moom dañ koy nëbb nag gars ñoo koy xoolal seen bopp incha allah bu demee ba feeñal ko rek dinañ xam ni la may sara ñàkkoon moom am na ko ba noppi dolli ci la may sara am ah. incha allah ah, waaw man doy na ma moo ànd ak yéen bon mi ngi ànd ak euh, yaay ji yaay ji moo nekk euh, waaw nii bi waaw moom mooy euh, Miss Comico ah. Miss Comico di doom ci Ranz range di doomu aada séeréer aada di doomu ñaar rob bu ñuul bi nag. rob bu ñuul bi euh, kii mooy lawsiwu lawsiwu mi ñu ngi jël euh, benn doomu Karim bu jigéen. teg ko ci benn doomu roi Bachir. moom mu juddu mu ngi toll si première portée moom it nekk xar bu am yaakaar ci moom. waaw mu ngi toll si première portée actuellement mu ngi ci treize mois treize mois yi des na tuuti sax. waaw ah, mu nekk xar boo xamante ne xar boo ñu am yaakaar ah? la ci moom. nekk espoir boo xam ni. Euh, na ko gars yi bàyyi xel mu ngi ñëw ndax yaakaar naa lu xar di am rek hmm. am na ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te xam ni moom it dina jël si li nga xamante ne moom la moom ci càmm gi macha allah waaw kii nag euh, collègue kii tout blanc boobu euh, tout blanc bi mi ngi nekk doomu maal bi ngay laajte ndigal waaw moom rakk kii la moom moo topp ci kaw kii ñoom ñaar ñoo bokk yaay mais bokkuñu papa yaay ji laa jël teg ko ci ndigal mu joxaloon ma ay cheikh benn cheikh bi mu ngi kër ga ma indi beneen cheikh bi pour présenter ko waaw bu dee robe n bi la aussi moom ba léegi doomu ndigal la waaw waaw teg bu ñuul bi tamit doomu ndigal la maal bi ngay laajte léegi moom it yaay ji mi ngi kër ga mi ngi toll ci 9 mois mais maal bi dafa rëcc teel ko tëb avant muy fer la ko maal tëb waaw mi ngi ànd ak yeneen ñaari jeune mâle mâle am na benn jeune mâle bu nekk ci box bi mu nekk doomam la aussi doom mook law siw ñoom ñoo ko jur mooy taawu law siw bi waaw mooy mooy mooy espoir bu doy waar espoir bi mâle euh, bële moom laa lay wax moom mooy euh, doom moo sur deux bi di ci félicité yaay ji Euh, suñ yaay ji nga xamante ne moom moo nekk Tëngéej euh, su ma ko waxee rek mère Maguette Guissé jarul waxtu bi sax ñëpp xam nañ ko mère Maguette Guissé moo ñu ci mayoon tëb biñ ci Fiara bi daaw ñun ma teg ko ci yaayu maal bi. ci yaayu maal yi moom mu juddu moom maal bee judd. ma maal ba la judd waaw. am ñaata mois ren. ma actuellement mu ngi ci 12 euh, mois moom. 12 mois macha allah mu mois waaw ndax fii la ñu woon te mu nekk moom it maal bu extraordinaire. boo xamante ne booy wër Saalum tamit boo jaaree ci moom yaakaar naa di nga téye. base bu wër sëkk ci Saalum boo ko amee rek jartul ngay wër leneen ci Saalum. jot na fee def benn doom. ndax moom moom bi mu amee 6 mois dama ko testé parce que man xar dama leen teel a tëbloo moom moo jur cuulul bi nga xamante ne moo nekk ci box bi moom rek la fi jur. Ah, à part euh, mag gi moo jur ñeneen ñi mais moom moo jur cuulul bi moom kese la fi jur. Euh, bu loolu weesoo tamit mu nekk maal boo xamante ne am nañ yaakaar ci moom ñu ciy sàkku ay ñaan. mu nekk doom ci Mansour 2 ñu am yaakaar ci moom trop trop trop. mu ànd fa ak ay grandes femelles. waaw mu ànd fa ak ay grandes femelles. mi fay ànd ak euh, benn fan gis naa benn foofu wala. waaw waaw am na fa ñaari jeune mâle. ñaari jeune mâle yooyu. il faut que ma ñëw ci ñoom. ndax ñoom grand champion moom moo ñu jaayoon yaay ji fii daaw ci fiara bi. mi ngi tudd Ahmed Diène ku nekk xam ne ko ci élevage. Euh, famille bi. mi ngi nekk euh, doo mi ngi nekk surtout nation doomu notaire la. Euh, seen yaay moom moo sëgg noon moom moo takkalee borom corne yi waaw borom korni yi. waaw doomu notaire la. notaire doomu nation. waaw mu jaay ñu ko ba noppi teg ko ci jaw jaw doomu teraanga. moom lañ couplé moom moo jur ñaari jeune mâle yële. ay seex ay seex waaw léegi moom mi ngi tudd pexe noonu. pexe noonu waaw pexe noonu bi nag dafa am lu waral kàddu gi ndax amoon na beneen tur. mais ni koy gisee dafa nekk xar boo xamante ne mën naa yëkkati sama loxo ci kaw ne amul ci élevage. parce que moom kese lañ fi dagg làmmiñam mu konne di dund. ok dagg làmmiñ waaw yaakaar naa ñu bëri dégg nañ rumeur boobu mais mosuñu gis xar mi. ok looloo ñu gën a poussé indi ko présenté ko may wax ak yow mi amul làmmiñ lamine bi dañ ko fekk ci bergerie ba waaw génnee ko dagg lamine bi ñun xamuñu dara tegal ñu foofu lamine bi dina naxari dégg nag ci dégg-dégg mais après xam naa de toute façon dinañ ko ŋaangal nga jël image bi. comme ça mu gën a leer ci boppu nit ñi. ko fajee bon dafa am suñu benn vétérinaire boo xamante ne wax dëgg yàlla vétérinaire bu qualifié la. Mhm. woon nañu ay quelques vétérinaires mais biñ ñëwee def nañoo xar mi il faut ngeen abattre ko ndax mënatul dund. Ah. ma woo sam benn vétérinaire bu ñuy wax Malick mu ñëw xool ko. ne ah yàlla moo yor bakkan nañ ci jéem ay pexe moom moo ci def ay pexem boo wax dëgg yàlla boo mbotee ñu ngi toll ci un mois net. ba actuellement ba actuellement mbotee ñu ngi toll seen troisième mois. instant bi mi ngi mën na mbé. instant yi mi ngi mbé mais da koy waaj. da koy day mel ni nag buy jooy. waaw met na trop nag moom mooy pexe noonu moom ah, ah ay waa aduna na am na lu ne ñun buñ ko dunduloon duñ gëm ni loolu am na waaw nekk loo xam ne ñuy baaloo xel gars yi tamit trop ci Bergerie ñàkk mais tamit na am sécurité bu wóor caméra surveillance yi na ko gars yu mel nii ak yeneen ak yeneen ndax yàkkati ñu ngi suñu biir mun ñu leen xàmmee waaw ah, léegi daal ah, moom benn production agnelle la fa nekk waaw digg bi production agnelle bi ci nekk euh, ay euh, ay doomu maal bi la doomu maal bi aussi am na ci ñoo xamante ne seen côté yaay côté maal bi ma yoroon la muy ndigal. waaw am na ci ay. Euh, waaw am na ci ay sëtu ndigal. waaw ay sëtu ndigal ñoo ci nekk seen yaay ay doomu ndigal lañ doomu ndigal laa jël teg ko ci sëtu magistrat bi. Euh, ci laa dem euh, comme juddule naa kii ci magistrat bi ma ne su ma leen boolee ñoom dinañ ma génneel résultat moo tax résultat bii lañ ma indil. élevage nag bon yoon la rek ay escalier la kenn ku nekk da ngay xool fooy jaar ba yéeg. waaw ko la mais ñi ngi ñaan yàlla. àgg ca kaw quoi ñu ngi si escalier nag di tàllal nit ñi loxo pour ñu yokk ñu ñaan yokk ñu doole. waaw jox ma bi adresse ngi euh, numéro bi mi ngi nekk 77 927 31 67 adresse bi mi ngi nekk euh, yëmbal euh, poste courant Boune Bergerie Ndarangi famille yow aussi ñu ngi lay féliciter franchement foire boo ñu fekk jël ñu. waaw mu nekk sa liggéey boo xamante ne amoo ci xàjj ak seen. kullu éleveur ku ne mu ngi lay ñaanal sa liggéey jëm ci kanam. xam gën a avancé. yàlla moo lay fay sa xol à travers na yow moo tax nit di nekk extérieur di dund suñu foire yi ñuy génn partout dans les mondes kooku yow la ñun ñëw exposé rek lañ mën bu ñu ñëwee exposé indi suñuy xar yow yaay ki nga xamante ne yow yaay tasaare tey oto bu amul moteur dem tey ñun yow yaay suñu moteur kon ñu lay ñaanal sa gudd fan ak sa wér-gu-yaram ok